lii rek vraiment c'est dur ci entrée Mboro ay xale yu doon lang benn benn oto frigo kenn ki daanu ci tali bi mu ngi ni daanu ci kanam dafa mel ni que dafa am hémorragie ah su ma juumalee ci bopp nekk na vraiment c'est dur ah amee Mboro entrée bi ci wetu résidence Dalal Gan vraiment métti na nañu woo ambulance